day teqale sujjóot bi ñu def ci gannaaw sëlmal ak ba ñu def ci njëkk sëlmal xëy na sax ñoo yemoo ci yu bare bari waaye sujjóot ba ñu sujjóot ci njëkk sëlmal moom lu am yéeney boppam ndax yéeney julli gi rek moo koy ëmbaale ndax moom laata ngay sëlmal nga koy def muy sujjóotu xabla salaam bii nga xam ne nag moom gannaaw boo sëlmalee nga koy def da nga koy yéene nde ñoo bokkule wax nga allahu akbar ci booy sëgg ak wax nga allahu akbar ci booy siggi waaye nag ba tey sujjóotu ba xadde salaam boo ko defee ba noppi dañuy sopp nga dellu baamuwaat taaya ja baamuwaat sëlmal ba boole ci fee nag moom boo defee xabla salaam ba àggal da nga baamuwaat taaya ja waaye da ngay door a sëlmal nag ndax sëlmal a góo woon ba salaam moom foo ko fekk fekkoon na nga taaya ba sëlmal boo ko defee ba noppi nag ñu bëgg nga baamuwaat taaya ja dellu sëlmalaat boole ja sujjóot bi nga xam ne la ko digal ci gannaaw boo sëlmalee soo ko defoon nag laata ngay sëlmal da nga def lu araam ndax day mel ne dangaa dugal ci biir julli ga lu ca bokkut ndax sujjóotu ba xam ne salaam moom nee nañ la daanaka ndolleen rek mbaa jamtalu ndolleen rek moo koy waral te nag li fekk sëlmalagoo yaa ngi ci biir julli gi kon bi la nee defal baax de salaam yow nag nga def ko njëkk sëlmal def nga lu araam du tax na ñu ne julli nga yàqu na waaye daal def nga lu araam xabla salaam mooy bi la waxoon ne la boo taayaa ba di bëgg a wax asalaamaaleykum da nga koy def nag door a wax asalaamaaleykum mooy xabla salaam boobu nag moom boo ko yéexee woon ba sëlmal rek door koo def def nga rek lu ñu sib waaye moo gën a woyof julli ga du yàqu te it moo gën a woyof moo tax bee moom daa araam bii nag moom ñu sib ko rek yem ci ak loo ko tey tey boo àndeeg ilimaan du am su julli lu mat benn rakk rek kon su jóot buñ ko digal dal la koy digal bu ilimaan dee def nag xabla salaam maanaam sujjóot ci njëkk sëlmal te fekk mu raw la it da ngay ànd ak moom rek def ko dooru jóg nag fay lam la rawee su ilimaan amee sujjóot xabla salaam boobu nag te moom defu ko daal sëlmal te yow xam nga ko yow maamoo mi da nga koy def rek dooru jóg àggale sa julli te yow sa julli kon dara du ca sikk su fekkee ne ilimaan ba la taxoon ñu digal ko sujjóotu xabla salaam ba daa matoon ñetti sunna moom nag defu ko day ne woon bu sëlmalee ba mu yàgg mbaa mu jóg fa nga jullee julli nga yàqu na bu ko defoon na te yow nga def ko rek sa julli yow baax na maanaam doonte sax la ilimaan juum ba tax ñu koy digal xabla salaam yow fekki woo ko woon laata ngay dikk la ko juumoon du tee rek boo xasee am ci julleem lu mat benn ràkka sujjóot boobee nañ ko ko digale yow itam noonu lañ la koy digale bu la ilimaan rawee nag bu dee sujjóot sujjóotu ba xaddi salaam muy gannaaw ba mu sëlmalee da ngay bàyyi yow ba fay lañu la rawee ba noppi door def nag ba xaddi salaam ba waxoon nañ ca yow yàq julli ilimaan raw la bu muy sujjóot ba xaddi salaam nga ànd ak moom defadoo ko ak moom bu fekkee ak ñàkk xam la mbaag tey la sa julli day yàqu su fekkee njuumte la nag moom waxoon nañ ne du yàqu su àndee ilimaan ba mu sëlmal ba nga jógee bay fay lam la roy woon nga wàññi kon wàññi boobee na nga ko sujjóotal xabla salaam mooy na nga ko sujjóotal bala ngaa sëlmal su fekkee ne sa ilimaan dañ koo digaloon sujjóot ba'da salaam te yow am nga ci julleem lu matub ràkka ñu ne la bu dee sujjóot ba xam salaam bul ànd ak moom jóol fay lam la rawee woon ba àggal ba ngay fay nag la mu la rawee woon nga wàññi da ngay jàpp ne kon dooleeg wàññi daata sa ci yow wàññi bi yow ci sa bopp yaa ko sabab dolli ga sa ilimaan moo ko defoon kon léegi da ngay sujjóot xabla salaam te bañ a sujjóot ba'da salaam loolu aljawhar an nafis ak ak axdari waxoon nañ ko soo àndee ci limaan juum ba bàyyi mbaa nga yokk loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ca sujjóot xabla salaam ba ba'da salaam xamal ne sa ilimaan gàddu na ko la nga ànd ak moom daal moom gàddu na ko loo ci juum lu ñuy digli sujjóot di jar yow ngay sujjóot daa wax juum ji sax waaye tey gi noonu la tey gi day wàññi sa tuyaaba rek waaye boo àndoon ak ilimaan ñàkk wax allah akbar ju bokkut ak géej armal ja ay yoon yoon it loolu amoon na sujjóot xabla salaam bu fekkoon ne yow dong la woon waaye ànd nga ànd ilimaan day tax du jar ngay sujjóot ngir loola gannaaw bu ilimaan sëlmalee nag ngay fay lam la rawee woon nag moom ilimaan du la gàddootil dara boo dee fay rek moom loo ci juum seetal na nga koy defare nga defare ko noona buñ ca diglee sujjóot xabla salaam mbaa baxda salaam it nga def ko juum ba bàyyi ngëneel ci julli yi wala juum ba bàyyi sunu suuf ci julli ga ndagam njuumte rek la du foo lu ñu sib te it du aajoo nga di ko sujjóotal soo ko sujjóotalee rek julli ga yàqu mel ne xulóot dañ ko sopp rek julli suba soo ko fàtte woon tax nga sujjóot xabla salaam julli ga yàqu yooyu jëlale sax sunu boo wax bee mu wax waaye benn allah akbar bu bokkut ak armal sunu bu dëgër la waaye benn boobee doom te su ko sujjóotal bàyyi ca ñaar mbaa ñett mooy tax ñu digle ca sujjóot xabla salaam kon soo bàyyee rek benn allah akbar tax nga sujjóotal ko xabla salaam julli nga yàqu sujjóot bu ñuy def gannaaw sulmal moom dañ ne woon dañ koy tooxale rek seytaane moo tax boo sulmaloon tey ko dañ koy def it mook nga fàtte ko bañ koo def ba mu yàgg ñoo yemoo lu mu yàgg-yàgg nañ la ko digle woon ba tey noona lañ la koy digale du la wàcc benn yoon li fekk defoo ko waaye nag moom li fekk yaa ngi dund rek saa yoo ko defee mu daal di baax yàggug jamono ja mbaa jóg fu nga doon jullee mbaa dara du ko yàq li fekk yaa ngi dund rek saa yoo ko defee rek mu daal di baax waaye nag du la wàcc mukk mukk xanaa nga fàtte ko te jotoo ko fàttalikuwaat ba génn àdduna su bàyyee benn sunna moo xam moo ko tey moo xam daa juum niki mu bàyyi biral biral moom benn sunna la boo xam ne def na ko sujjóotal xabla salaam wala mu bàyyi lu mat yaari sunna moo xam yu dëgër la moo xam yu woyof la ñu digal ko ca sujjóot xabla salaam waaye nag moom bëtul ñett bu ko fàttee ba sëlmal te yeggut na ko def rek sottiku na gannaaw sëlmal waaye du ca wàññi dara su fekkee xës na yàgg nag mbaa jóg na fa mu doon jullee di jaramu di ko defati te julleem baax na dara sikku ca fu ma ta seetlu kay mooy lam bàyyi woon ci sunna bu fekkee matoon na yet mbaa mopp ko ñu waxoon ko ne ko da nga koy sujjóotal xabla salaam kooku moom bu ko fàttee bu sëlmal ba mu yàgg mbaa mu jóg fa doon julli rek julli ga yàqu na faawu dee julliwaat ba tey bu bàyyee farata ci julli yi te gaaw koo fàttaliku kon da koy def rek julli ga baax waaye nag bu bàyyee farata ci julli gi te yéex koo fàttaliku ba mu yàgg mbaa mu jóg fa mu doon jullee kon julli ga day yàqu loolu nag mooy bu dee ci njuumtee tax defutoon farata ja te bu fekkee da koo tey xam ne nangam farata la ci julli gi su koy bàyyi rek fa saasay saasa julli ga dal na yàqu ndax moom day fo soo juumee ba bàyyi farata ci ab rakka dañuy teqale mu bokk ci rakka bu mujj ak mu bokk ci benn ràkk bu bokkut ak ba ca mujj bu dee ràkk ba ca mujj moom lay tee nga mën a def farata ja mooy nga wax asalaamaaleykum joo xam ne da ngaa jàppoon ne julli gi mat na moo tax nga wax asalaamaaleykum ràkk bu mujj ci julli ga moom farata boo ca fàtte te xas wax asalaamaaleykum joo xam ne jàpp ne julli gi mat na moo tax nga wax ko doo mën a def rek jëmmi farata jooja daal di bàyyi déedéet da nga koy weccee ab ràkkab lum ab ràkkab lum ngay julliwaat weccee ko farata joojee nga bàyyi woon te ràkk ba ca mujj nde bu fekkee ne ca ràkk bu mujj ba ca nga bàyyee farata ja waaye jotu laa wax asalaamaaleykum mbaa wax nga ko waaye du jàpp ne julli gi mat na da ngaa juum rek mu rëcc la nga wax ko loolu lépp da ngay daal def rek farata joojee mu daal di baax bu dee nag raka yi ci des nga bàyyi ci farata lay tee nga mën a del def ko mooy nga jàll ca raka ba ca suuf ba rukkoo ca ba sikki bépp raka boo xam ne xas nga ca bàyyi farata te yeex koo fàttaliku ba dem ba jàll ca ba ca suuf ba rukkoo ca ba sikki rek dellu defi farata joojee raw na mënatoo ko léegi kay rakkay julli gi rek ñooy jàllar jiku ndax boobee nga xam ne ca lañ bàyyee farata te defaat ko wees moom kenn du ko limaaleeti ba sës ci moom rek wecc ko rakkay jàllar jiku nag ba na julli gay mate ndegam nag daa wax ne bu dee rakk bi ci mujj nga fàtte ca farata te waxagoo asalaamaaleykum joo xam ne jàpp ne julli ga mat na moo ko waral kon ba tey mën ngaa def farata ja wéegut bu dee beneen ràkka itam ci ràkkay julli ga di feet jàllagoo ci ràkka ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi dellu ca ràkk ba nga fàtte farata ja defal ko farata ja wéegut mu lay xamal nag kon boo delloo bëgg def farata joojee noo koy defee lam fàtte woon ca rakka ba bu dee faatiha wala muy rukkoo kon faw bu fekkee dafa fekkoon mu toog day jóg taxaw bu dee faatiha ja mu daal di jàng faatiha jàll ba rakka ba jeex mu sujjóot nag ba àdda salaam ndax yokk ba su fàttee rukkoo faaw mu dellu taxaw ndax sëgg jo ci rukkoo ba ci taxawaay la war a bàyyi ko bu koy def ñu sopp itam mu jàng dara ci alxuraan door a rukkoo ndax rukkoo ba sës ci am njàng te nag mu bañ a baamu faatiha ndax faatiha dañoo taamuwut ku ko jàng ci benn ràkka ñaari yoon mbaa yett su fekkee ne dafa rukkoo woon rek daal di jàll sujjóot fàttaliku nag ne siggi bi waroon ni siggi ca rukkoo ba kat def ko woon kon day bàyyi ko ca toogaay ba ba toll ci nam sëgge woon di rukkoo gannaawum dóox mu daal di siggi nag te jubli caa mottali siggi bam bàyyi woon bu siggee itam mu wax samihallahu liman hamidah lu ci mën doon rek day jàll ba àggale ràkk ba te sujjóot nag ba ànd salaam soo fàttee benn sujjóot rek nde du ñaar ñëpp te fekk nga taxaw da nga daal di sëgg xawiku wut si sujjóot bu waaye da ngay toog ba àggal door a sujjóot ndax sujjóotu ñaareel boo ko daan def dara fekk nga toog ci gannaaw sujjóot bu jëkk ba door koo def kon ngay toog ba noppi door a def nag sujjóot boobee nga fàttaliku tam yi bu ñaareel su fekkoon ne nag ñaari sujjóot ñëpp nga fàtte woon moom te fekk nga nekk ci taxawaay boo xawee koo ca kaw da ngay dal di jekki-jekki sujjóot rek bu jëkk ba toog dellu sujjóotaat bu ñaareel ba waaye boo xawee koo ca kaw moom doo jiital ab jataay door di sujjóot ndax foofu amul jataay dafa waxoon ne rakk guddul ba mujj boo ca fàttee farata lay tee nga mën a dellu def ko mooy nga jàll ca rakk ba ci sës ba rukkoo ca ba siggi mu ne nag kon ndegam jàll nga ci rakk ba ci sës ba rukkoo ca ba siggi doo mën a dellu di def farata ja nga fàtte woon ca rakk ba ko jiitu kon bu fekkee boobee nga fàttee farata ja ba mënu koo defati léegi bu jëkk la woon kon ñaareel ba mooy soppiku bu jëkk boo defee nag sarakab ñaareel mu soppiku bu jëkk nga xam ne bu jëkk ba wacc nga ko da nga cay tegaat beneen ràkka jàng ca fatiha bu saar te toog foofa taaye muy taaye dikk ndax ndegam wàññiwaale woo bu jëkk ba bu ñaareel bii moom nga soppi bu jëkk da nga cee tegaat beneen kon mii boobu ñaareel nga jàng ca fatiha ak saar te bu rakk boobu jeexee nga toog taaya te bu julli gi àggi nag nga sujjóot ba de salaam ndax rakk boobu nga xam ne da nga ko weccee beneen ngir fàtte bi ñu ca fàtte farata te def nga weesoon su fekkee ne rakkab ñaareel ba ca nga fàtte farata ja ba dem ba ca rakkab ñetteel ba barukoo ca ba siggi kon rakk boobee nga jàppe woon ñetteel sopp ko nag ñaareel wecc ñaareel ba see boo daal toog foofa taaya jàpp ne mooy taayi digg tegaat ci ñaari rakk ndegam julli ga julli ñeent rakk la woon foofu nag moom da ngay sujjóot xabla salaam ndax rakkab ñaareel ba da ngaa jàppoon ne ab ñetteel la ba jàngoon ca fatiha kese amutoon saar boo ko booleeg dolli nga nga dolli rakka ba manqué woon nag mu daal nekk dollee wàññi nga sujjóot xabla salaam foofu su fekkoon ne rakkab ñetteel ba ca nga fàtte farata ba dem ba ci rakkab ñeenteel ba ba rukkoo ca ba siggi kon amatoob ñetteel sa ñeenteel bii moo soppikum ñetteel da nga cay tegaat beneen rakk jàng ca faatiha kese te bu julli ga jeexee nga sujjóot baax de salaam ndax yokk bu ci am mu ne nag li ñu tuddee fasub rakk te wax ne mooy tax farata ja nga fàtte woon ci rakk ba jiit doo ca mën a dellu ba dañoo jàpp ne rukoo am na rakk ba fasu na rakk ba weesu mënu caa dellu da ngaa sëgg te rukkoo ba ba siggi ba taxaw jonn ba ne tekk loolu mooy fasub rakka nga xam ne nee nañu maamoom ci bëgg a ànd ak ilimaan su fekkoon ne ba muy sëgg di jàpp ci woomam fekk na ilimaan di tàmbalee siggi waaye ilimaan ab siggeem matagut mu daal di gaaw jàpp ci woomam kon daal nay bokk ca booba rakka lanu daa wax naa la lay xamal ne fekke nga booba rakka mooy ba ilimaan di jàpp ci ay woomam nga jàppandoogu moom bu dëgër a dëgër loola moo gën a wér doo ko nattable waaye jàppal na it su fekkee ba ngay sëgg di dem ci say woom daa fekk ilimaan bàyyi ay woomam waaye laata muy siggi siggi mat jàpp nga ci say woom rek booba rakka bokk nga ca waaye nag day am ay masala yoo xam ne moom boo sëggee rek jëm ci rukkoo ba ñu daal di jàpp ne rakka ba dal ne fasu ba loo wees woon ci rakka ba ko jiitu doo ca mën a dellu ay benn benn masala la yoo xam ne téere yu mag yi ñoo koy indi waaye yu ndaw yi duñ ko faral la indi kon nee nañu am na juróomi jaari masala yoo xam ne moom boo xasee sëgg rek jëm ca rukkoo ba ñu jàpp ne rakka ba fasu na ba lu xas raw doo ca mën a dellu lu weesu na juróom yaar yi moom balaa rakka baa fasu da ngaa rukkoo ba siggi ca rukkoo ba ba taxaw jonn bi ci jëkk juróom ñaar yi mooy ab rakka boo ca fàttee rukkoo kon bàyyi nga ca farata boo jaalee nag ci rakk ba ci sës ba sëgg rek jëm ci rukkoo ba daal nañuy jàpp ne doo mën a dellu ca ràkka ba nga weesu di ko defal rukkoo ba nga ca fàtte woon figu kese gi rek fasu ràkk lañ koy jàppe muy benn ñaare ba mooy nga fàtte yalu moo xam fatiha ja moo xam sarwa moo xam yaar yépp boo xasee sëgg rek jëm ci rukkoo ba dañu jàpp ne dellu ca yalu ga wees na booy dellu rek ngir yalu ga julli ga yàqu ndax kon da nga bàyyi farata lu rukkoo bi nga sëgg jëm ca jëm ci sunna ñetteel bi mooy fàttee birul moo xam fatiha ji la moo xam saar wala moo xam yaar yépp la boo ko fàttee birul ba ko sëgg jëm ci rukkoo ba rek dañu jàpp ne ràkka ba fasu na boo sikki woon ne daay def birul gi rek julli ga yàqu ñeenteel mooy kàbbar yi ñu kàbbar ci julli korite mbaa tabaski nga fàtte yépp ak nga fàtte ci benn ñoo yemoo boo xasee sëgg rek jëm ci rukkoo ba dabaatal nga wees na da nga wéy rek te sujjóot xabla salaam juróomeel mooy jàng fatiha fàtte jàng saar wa nag saar way sus ci fatiha ci ràkk bu jëkk bu ñaareel nga fàtte ko ba xas sëgg jëm ci rukkoo ba ñu jàpp ne kon rakka ba fasu na boo dellu rek ngir jàng saar wa julli ga yàqu ndax da ngaa bàyyi farata dellu ca sunna juróom-benneel mooy ngay julli julli farata ba julli naafila ba àgg ci sujjootu alquran fàtte koo sujjoot nag ba xës sëgg jëm ca rukkoo ba kon jeex na doo mën a siggi di def sujjootu alquran boobee juróom ñaareel nag mooy ngay julli ak julli ci biir nga fàttaliku ne julli nga ko jiitu kat am na loo ca bàyyi woon defoo ko woon mbaa julli nga ko jiitu kat bàyyi woon nga ci lu mat ñetti sunna ñu ne la woon su jootal ko xabla salaam te defoo woon xabla salaam boobee julli gi nga xam ne ci nga nekk bu fekkee xas nga ci sëgg jëm ci rukkoo ba rek dañu jàpp ne kon julli gu njëkk ga yàqu na doo mën a dellu ca gu njëkk ga di ko defal dara ci la nga ca fàttaliku su fekkoon na it julli googee dina caa jigaloon xabla salaam te bàyyi yetti sunna waral ko it julli googa day yàqu rek moom day dellu nag ci la waxoon ne ràkk bu mujj ba boo ca bàyyee farata lay tee nga mën koo defar mooy nga wax asalaamaaleykum joo xam ne jàpp ne julli ga mat naa ko waral suñu nee ko faw rakkab lëm nga indi kon yéenee mottali julli ga du ca mën a ñàkk daañu sopp it mu yëkkati ay loxoom ca bu muy wax allahu akbar ndax it wax nga allahu akbar mi wa takbiirin ji waru gar la lu sart nag bu ko bàyyee itam lu tax julli ga yàqu muy wala tabtulu bi tarkihi bi tarki takbiir yi moo ko tax di wax da yéenee mottali julli ga mënta ñàkk wax itam allahu akbar te yëkkati ay loxoom su fekkee nag ci détail la nekkoon kon noonee mu toogee la yéenee daal di kàbbar dooru jóg nag indi ràkka boobee wajalla sa loxo ji nag mooy su fekkee ne daa fekkoon mu taxaw faw day delluwaat toog ndax mi ngi bàyyi woon julli gi ci jotaay kon day delluwaat toog bu toogee nag ba yéene wax allah akbar dooru jóg nag indi ràkka boobu te loolu lépp kat day bañ a yàgg ne saa yoo bàyyi ab ponk ci jullit farata moom te yéex koo fàttaliku bu nga ko si yàgg julli ga day yàqu ñu ñu wax ku fàtte woon a wax asalaamaaleykum wala muy sikki sàkk ba xam wax na ko waxu ko waaye yëggut te it jógut fa mu toogoon muy xëg la itam kon moom day jekkadi ko rek daal di wax asalaamaaleykum te dara du ko ca war waaye bu fàtte takk-takk yi fa mu toogoon jógu fa yàggulit te it moom xib la boole ca man nga cee teg nag ne su fekkee ne jóg na fa mu toogoon waaye nag moom it xib la ba tey yàggulit ba tey wala bu yàggee it yàggaay bu digg doomu rek la kooku dañ koy digal lu mu wax allahu akbar taaya wax nag asalaamaaleykum te sujjóot baada salaam kooku moom bu fàttante boole wax allahu akbar taaya sëlmal sujjóot baada salaam li mujj nag mooy dafa mooy xibla lu bare bare ka mooy xibla lu bare bare moom duñ ko ne waxal allahu akbar duñ ko ne taayal dañ koy wax rek mu jublu xibla wax asalaamaaleykum te sujjóot baada salaam te kenn nga weesoon moom da nga ne woon na wax allahu akbar te taaya sëlmal sujjóot baada salaam kii nag moom nga ne na jublu xibla rek wax asalaamaaleykum te sujjóot baada salaam du aajowoo muy wax allahu akbar du aajowoo muy taaya waaye nag mën ngaa tag foofu ne soo fàttee wax asalaamaaleykum ba mu yàgg rek moo xam mooy nga xibla wala mooy wa xibla jóg nga fa nga toogoon wala jógoo fa bu ko si yàgg rek moom julli ga yàqu na moo am toj génn ci moom wala mu def lu mënta ànd ak julli mel ni lekk mbaa naan mbaa wax bu fàttee sëlmal def kenn ci yooyu rek julli ga yàqu mu ne nag boo amee ñaari rakk ñu digal la toog taay taayi digg nga fàtte ko ba ne yëkk tàmbalee jóg waaye say loxo ak say bëtiwoom ñàkku ci ba tey luy lal suuf kon na ngay delluwaat toogaat daal taaye jàll te jar ngay sujjóot ba xam salaam di ko jàppe ak yokk su fekkee nag dem nga ba say loxo ak say bëtiwoom dara laalatu ca suuf kon na ngay yooyu rek te jàpp ne bàyyi nga taayi digg nga sujjóot nag qabla salaam bu ñu nee bi nga amee ñaar rakka ñu digal la toog taayi taayi digg jóg nga ba say loxoog say bëti woom daawatu suuf ñu ne la woon jàllal rek ci sujjóot qabla salaam mu ne nag boo demoon ba taxaw jonn loolu del ci def taayi jiitam du tax julli ga yàqu te it bu fekk yaa doon jiite ka ànd ak yow day ànd ak yow ci dellu si googee toog taayi ne yow dañ jàpp nag ne kon yokku nga su julli ga matee nga sujjóot baax de salaam moom daal bi nga xasee jóg ba say loxoog say bëtiwoom laal tu suuf dañ la woon jàllal rek te sujjóot xabla salaam mu ne nag boo demoon ba taxaw jonn te teewul nga dellu si def taaya ji door a jàll it du tee julli ga wér na te it ku ànd yow di julli na ànd yow ci tooga nga toog taaya bu julli ga àggee nag ngeen def baax de salaam ndax yokku ba bu dee julli ba am ay rakka muy sikki sàkk ne am na ca rakka boo xam ne da koo sujjóotal benn sujjóot bàyyi ba ca des te xamul nag ban la ca bu dee ci taxawaay ràkk bu ko jiitu defal ko sujjóot ba mu égut muy benn sujjóot muy ñaar bu fekkee dafa toogoon di taaye it xamul nag ci ràkk boobu mu toll taaye na wala beneen it defal ko boobee mu toll moom wéegut da ko daal defal boobu rek mu wér ne booba ràkk moom am na ko loolu nag bu ko dalee mën naa am mu dem ba ca ràkk ak mujj ba ba toog bay taaye mën naa am itam laata muy ak si foofa ci benn ràkk ci sàkk ci des loola dal ko ca loolu lay teqale nag bu dee ci ràkk mujj ba ba mu tolloo ca taaya ja la ko loolu dal muy sikki sàkk ne am na ràkk boo xam ne benn sujjóot la ko defal te xamul ban la ca kon bu mujj boobee mu toog di taaye nag ko daal defal mu wóor ne moom am na ko mu wóor ne ko it yam weesu bu mu ca doon rek ñàkk na ko ndax defal ko farata ja wees na loolu nag moo tax muy jóg di indi benn rakk dong jàng ci fatiha kese mu daal di mucc ci juleem te nag mu sujjóot xabla salaam ndax day jamtalu ne benn ci ñaar rakk yu njëkk ya te la fàtte woon sujjóot ba te ni rakk yi julli gi jëladu ko jëladu ko kon rakk boobee amut aw saar ndax ba ko wecci amul saar loolu moo tax kon daa boole yokk ci wet wàññi ci wet kon kon sujjóotu xabla salaam lay def foofu soo demoon ba taxaw ci ràkkab ñeenteel ba mbaa daal nga ne ci ràkkab ñeenteel ba jotagoo rukkoo ba siggi di sikki sàkk nag ci ràkk ya nga weesu ana ban nga ca bàyyi ab sujjóot kon na ngay dellu defal ko ràkkab ñetteel ba ndax ndegam defal ko ko weesuwut da nga koy defal rek mu daal di wër ne kon ràkk yi nga weesu ñett la te am na ci boo xam ne moom baaxatut kon ñaar rakk rek moom nga mën a dogu ne am nga ko moo tax kon boo defee sujur boobee defal ko sa rakk ba nuru am ñetteel xamal ne booba soppi kon am ñaareel da ngay toog foofa taayi taayi digg jóg nag tegaat ca ñaari rakk ba noppi nag sujur xabla salaam moog ba nga weesu ñooy moo ñu rakkay julli gi jëllëra bi koo tax na dana am sa rakk boo xam ne amut aw saar te kon wàññi lay doon boo ko booleeg rakk ba nga fàtte woon sujjóot ba te weccee ko beneen muy ab yokk muy yokk ak wàññi nga sujjóot xabla salaam bul fàtte lu mu ne waaye te shahadu tamit taaya nga xam nga yaa ngi woon ci taxawaayu rakkab ñeenteel fàttaliku ne rakk yi weesu am na ca boo bàyyi ak sujjóot ñu ne la bu ñetteel bi moom da ngay dellu defal ko sujjóot bi ndax bu fekkee ci moom la dëkk itam dal nay sotti am na ko su boobaa nag day wóor ne kon ñaar rekk baax ci lu wóor moo tax da ngay toog foofu taaye muy si taaye digg nag nga door a jóg jàll indiwaat ñaar rakk yéem wax te bañ a fàtte xabla salaam niñ ko leerale léegi soo demoon ba ci taxawaayu ràkkam ñetteel ba kon weesu nga ñaar yoo xam ne da ngay sikki sàkk ana ban nga ca fàtte ab sujjóot dangam yaa ngi taxaw taxawaayu ràkkam ñetteel rek defal sujjóot ba ràkkam ñaareel ba moom wéyegut ndax defagoo lu koy taxawee kon na ngay dellu rakka ba doonoon ñaareel nga defal ko sujjóot ba wóor la ne am nga ko su boobaa nag moom doo nga amagun saye boo dolliwaat ca ñetti rakka sa julli door a mat ndax ndegum ñaar nga weesu woon bu jamtalu ne am na ca boo bàyyi benn sujjóot mu ne la defal sujjóot ba rakkam ñaareel ba moom wéyegut soo ko defalee sujjóot ba mu wóor ne am nga ko day jamtalu ne bu njëkk ba te nga fàtte woon sujjóot ba te defal ko ko wees kon benn doo nga amawoon da nga cay tegaat benn jàng ca fatiha ku saar te bu raaka boobu jeexee nga toog foofa taaya ndax ñaareel la ci yow su ko defee nag nga tegaat ci ñeneen ñaar yoo xam ne fatiha kese nga cay jàng daldi taaya sëlmal waaye nag foofu da ngay sujjóot moom baax de salaam boo ko seetloo ni sa julli ji tëddee rakka bu njëkk ba bu ñaareel ba bu ci nekk am na saar kon doleen rek mooy am foofu nga sujjóot baax de salaam boo noppee ca julli ba sa ilimaan rukkoo bu siggi ba taxaw jonn te yow jotagoo rukkoo loolu day soppiku ñeenti anam ndax mën naa am rakka boobee moom nga njëkk fekk yow maamoom ca jullik ilimaan duñ seet ndax moom la ilimaan njëkk julli mbaa déet yow mi imaam moom la ñuy seet ba xam ndax ràkk bi la loolu dale moom nga njëkk a fekke ci mboolem julli ga wala amoon nga beneen njëkk booba mu ñaari tomb nga ne itam la tax ilimaan rukkoo ba jàll te rukkoo mën naa muy ngànt mën naa itam du ngànt yaa ko tey nga teqale nag kon ñeent tomb yooyu luy àtte ba bi mu njëkk a wax mooy bu fekkee ne fekkoon na nga am benn rakk ci julli ilimaan mbaalu ko ëpp waaye yow loola du rakka ba nga njëkk a ànd ak moom mu ne kon su fekkee ilimaan ba ak julleem gaawewut noona nga xam ne jàpp nga ne man ngaa rukkoo teg ca la ca topp ba jotee ko fa mu toll te fekk du siggeegun ca su jootu ñaareel ba ca rakka boobee kon noonu ngay def daal di rukkoo teg ca la ca topp ba tolloog moom fekk nag jotugut a siggi ca su jootu ñaareel ba ci rakka boobee boo jàppee nag ne ilimaan ji ak julleem daa gaaw loolu xaju fi boo ko déjjee mit doo ko man kon da nga koy fekk rek fa mu toll bu sëlmalee nag nga fay rakk boobee su fekkee rakk ba nga njëkk a fekkee ci jullit ilimaan ja ca la la loolu dale kon moom moo gën a yomb ay mbir ndegam teyoo ko ngànta tax rek dañ laa naj sàppe si bu xante ba mën laa rukkoo mbaa nga xaw a gëmmeentu mbaa sam xel fàtte woon ne kat ci rukkoo lañ toll waaye boo barak rek nga njëkk a fekk ci julleem day mel ni kon ku ñëwoon bëgg a ànd ak ilimaan fekk ko ci ràkk boo xam ne ilimaan ja rukkoo na ba weesu ko nga xam ne day kàbbar rek ànd ak moom te boobaa ka du ko limaale yow it boobu noonu nga koy def dagam boobu ràkk nga njëkk a fekk julli ilimaan moom da ngay jàpp ne ñëw nga ànd nga ak moom te ràkk ba nga ko fekk rukkoo na ca ba jàll doo ko limaale sa julli nga wéy nag àndaat ak moom ba xam looy am ci julleem bu ilimaan sërmalee nga fay ràkk boobee saa yoo seetaanee sa ilimaan rukkoo ba siggi ba taxaw jonn te yow jotugulaa rukkoo te it yaa ko tey dala neex rek du da ngaa fàtte woon ñu ngi toll ci rukkoo du da ngaa gëmintu ne la yoweef du buuxante du dara da nga seetaan rek ba ilimaan rukkoo ba siggi ba taxaw jonn te yow jotugulaa rukkoo nga jàpp ne kon da ngay fo sa julli daal di yàqu kon faye boo daal di armal rek bokkaat ci julli ga la nga defoon yàqu na su fekkee ne ilimaan ba mu rukkooyee ba sigi ba taxaw jonn te yow maamu jotugulaa rukkoo nganta ko waraloon koyit kat su la wóoree ne ilimaan moom raw na la ba noppi ndax su jóot na su jóotu ñaareel ba bu siggi ca boo ne daay gaawantu rek def rukkoo bi dali gaaw dabi ko it da nga yàq sa julli rek ndax day mel ne kon ilimaan da laa raw nga gaaw fay lam la rawee woon ci biir ak julleem nga xam ne boobu fekkagul mu sëlmal ilimaan bu la rawee faaw da ngay bàyyi ba mu sëlmal nga door a fay lam la rawee lii nag boo ko defee nga xam ne sa ilimaan moom rukkoo na ba siggi ba taxaw jonn te yow nag jotugulaa rukkoo waaye ngànta ko waral waaye itam nag ilimaan xas la raw ba noppi xam nga ne moom mënoo fee def rukkoo ba teg ca la ca topp dabi ko balaa siggi ca sujootu ñaareel wala sax gis nga ko mu siggi ca sujootu ñaareel ba àggal nga ne naa gaaw nag def rukkoo bi rek te dabi ko da nga yàq rek sa julli ndax da ngaa mel ne kuy fay te fekk na sa ilimaan sëlma la gut ba tey ni mu ko waxee fii noonu nga ko jàng woon ci lu mel ne al jawhar an nafis wala al axdar yi mooy sa ilimaan sujjóot ba jàll ci ràkk ba ca topp te yow jotugulaa sujjóot xëy na da nga xawoon a gëmmentu mbaa buuxante ba moo metti moom daal ngànt ko waral moom it da ngay seet rek ba xam su fekkee ne bu benn sujjóot muy ñaar mën nga koo def dabi ilimaan bala moo rukkoo ba siggi kon muy benn sujjóot muy ñaar da nga koy daal di def gaaw dabi ko balaa rukkoo ba siggi ba taxaw jonn ci ràkka ba suuf ca booba su fekkee nag amoo yaakaar ci loolu ndax ilimaan jooju julleem daa gaaw da ngay jékki-jékki rek fekk ko fa mu toll bul jéem a sujjóot bul jéem a def dara fekk ko fa mu toll rek ngeen ànd bu sëlmalee nag nga fay ràkka boobee. foofu nag dañ ne woon sa julli faaw mu am dolli waaye lay tax ñu digal la nga sujjóot ba xam ne salaam mooy nga doon sikki sàkk xamatoo loo defoon. xamatoo da ngaa bàyyi woon rukkoo ba mbaa sujjóot ba. daal di fekk ilimaan fa mu toll am da ngaa defoon rukkoo ba ak sujjóot ba ak la ca topp ba tolloog moom fa mu toll xamatoo loo ca defoon nga ne kon naa def lu gën a wóor indi ab ràkka kon boo indee ràkka boobee daañu la digal nga sujjóot ba àdd salaam boole ja